محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رهماء بينهم رهماء بينهم تريهم ركعا سجدا يبتعون فضلا من الله ورضوانا سيميهم في وجوههم من صر السجود zalika masaluhum fi tawre hadiyati muhjilatun kulla malik kanu munazi'an wa a'za'ul malik ma'a tawajihan nasara lahu liya bila ilaha illallah bismil ilahi tayma way jambar soxna faatu faal kii moo di jàmbaar yéen waa lampu maam jaara déglu leen ma ma woy fi jàmbaari soxna jaara moom lu am day liggéeyal soxna jaara moom lu mu am day liggéeyal soxna jaara te du denc dara ci barkeb maam jaara yal na ko yàlla ak yonent bi fay ci barkeb soxna jaara ngeen ngi fay auzu billahi mina seytaani rajim wa inni ya u'izuha bika wa suriyataha mina seytaani rajim rabbi auzu bika min hamasati sayatin wa auzu bika rabbi an yahdirun ñi ngi ñaan Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké yàlla na fi doole yàggaat lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax maam Cheikh Ibrahima Fall ñu gën koo xam ci sëriñ di faal euh, moom sëñ Mouhamadou Fall Mbenda jaxu nay ba Saala Penda mi des si Ngaraaf yàlla na fi yàgg lool ànd ak wér waaye di ko ñaanal bu baax sëriñ Cheikh Ndigal Fall di xalifa euh, sëriñ Cheikh Fall bàyyib góor waaye di ko ñaanal sunu jàmbaar jii toog muy soxna Fatoumata Fall lamp maam jaara liggéeyakoonu maam soxna jaara ambassadeur u maam soxna jaara bu ngeen gisee jotaay bu tedd bii nga xamante nii mi ngi amee fii ci euh, Masaalikul Jinaan euh, di siyaare mboolem mbokki taalib yi fi teew ci bis bu tedd bii nga xamante ni mooy wàccaay gi nga xamante ni ñu ngi koy fas yéenee waajal bis bu am solo bii nga xamante ni soxna Fatoumata Fall lamp maam jaara mi ngi koy amal at mu ne ren ji tombeek 19e ku ne xam na ni 4 avril ku ko tudd xel yëpp dem ci euh, Serigne Touba Xaadim Rasool ndax biro Ndar ku ne xam na ni Serigne Touba numéro diis la woon waaye ku ne xam na ni li waral ñuy woowee Serigne Touba numéro 4. fekkoon na rang ba xaadi mooy fukkeel ba waaye moo def di tax bañ dindi yéen ba daa jël la ñëw ni maay ki wisit laaj leen ma maa waral ngeen wisit euh, gis ngeen ma 4 avril mooy sunu indépendance ku ne xam na ni soxna Fatou Maam Jaara ci at yi yëpp ku ne xam ne ni mi ngi def liggéey bu am solo muy liggéey bu tedd boo xamante ni marche boo xamante ni da koo jagleel euh, Serigne Touba Khadim Rasoul ren jii nag mu jàpp ko 4 avril bii di ñëw fii ci monument bi lañ ko fas yéenee daje ak mbokki taalibe yi nga xamante ni ñu ngi jugee euh, ci biir réew mi ak bitim réew soxna Fatoumata Fall mi ngi ci woo xarit yi am di jàmm yi soppe yi. nu fa jugee def caravane bu am solo jugee place bi nga xam ne mooy monument bi jëm fi nga xamante ni mooy Masaalikul Jinaan soxna Fatoumata Fall yëkkati bernde yu am solo ku ne xam ne ni ci koor gi lay tombeel te ku tudd koor xel lépp dem ci maam Cheikh Ibrahima Fall jàmbaaram ja kon soxna Fatoumata Fall ñi ngi ñaan yàlla sunu borom guddal aw fanam ñi ngi siyaare mbokk yi nga xamante ni eh, ñi ngi feggoog eh, soxna Fatoumata Fall ci avant première bi nga xamante ni soxna Fatoumata Fall mi ngi ciy woo mbokki réew mi ak bitim réew di ci woo mbooleem fu daayira maam soxna jaara ne muy biir réew mi ak bitim réew soxna Fatoumata Fall mi ngi la ci woo waaye ñi ngi siyaare bu baax mbokk taali bi fi teew famille Matala mbay ku ko tudd tudd soxna Fatoumata Fall lamp mam jaara waaye ñu ngi nuyu bu baax waa kër Serigne Moustapha Fall teew nañ fi di nuyu bu baax Serigne Abdoulahi Fall teew na fi di nuyu baax Serigne Jiilu faal teew na fi waaye di nuyu bu baax ku baax muy sëriñ euh, Basirou Fall teew na fi di siyaare bu baax soxna pëye teew na fi di siyaare mboolem mbokki taalibe yi fi teew soxna Khady Badiane ñu ngi koy siyaare di siyaare mboolem délégation bi nga xamante ni soxna Fatoumata Fall ñëw na ànd ak ñoom ci liggéey bu tedd bii nga xamante ni mooy liggéeyu Sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul waaye feggoog euh, jëwrin maas ñi ngi koy siyaare bu baax di ko ci wàccu waayam bis baa ngoog 4 avril mooy sunu indépendance soxna Fatoumata Fall liggéey ak nu maam soxna jaara ambassadeur maam soxna jaara bu ngeen gisee soxna Fatoumata Fall muy dem jarul ngay laajte yitte yi maam Serigne Fall moom la def mbégte moom marsam day neex xumb lool am ambiance nii nga mën a mel yàlla nga doon son excellence waaxul te yi bul di sa ñii lay sikkal taxoo sunu waa ji yaanu sagal li ma neex ci yow danga am engagement am fulla am fayda te bëgg changement waaye ñi ngi ciy woo mbooleem fu soppey euh, Mame Charan Fall ne ñu ngi ciy woo Serigne Cheikh Fall Khady Gueye président association Lamp Fall ca Paris ku ne xam ne ni digganteem ak soxna si lenn la makket bi nga xamante ni soxna si liggéeyal na ko maam Serigne Fall moo war a am foofu ca Paris soxna si jël ko teg ko ci loxol euh, Serigne Cheikh Fall Khady président association lamb bu yàggul kon ñu ngi ciy woo Serigne Cheikh Fall Khady président association lamb di ci woo mbooleem njabootu maam Serigne Fall gépp rek la ko dalee kër Serigne Fadilou Fall ba ci kër soxna Oumy Fall soxna Fatoumata Fall lamp maam Diarra mi ngi leen ci woo di ci woo mbooleem lamp maam Diarra yi nga xamante ni ñi ngi ci biir réew mi ak bitim réew bis baa képp ku ci teew yàlla na maam soxna jaara fat la maam soxna jaara na kum fat doo fanaan biti man xaadim ma dend kenn du ma jiitu soxna Fatou Mata Fall woon na ñëpp 4 avril mooy sunu indépendance fas yéene jógee place de la nation jëm fii nga xamante ni mooy masaalikul naan Serigne Touba am na fa yaari guddi fii ci ndakaaru lekkul naanul lulul ci leer yàlla kooka neelu nee na keroog gis na fa sunu maam jaara mu di ko ñaax te di ko dolli daara nee na keroog gis na fa rasulalaa yi mu déy ko loo xam ni kenn mësu ko wax billaayi ku weddi lii laajal Serigne Mor Penda moo fekkoon waxtaan wa keroog ma Bamba soxna Faatumata Fall mi ngi woo ñëpp fii nga xamante ni mooy ndakaaru capitalu Sénégal fa séenee def marche bu am solo njukkal Serigne Touba Xaadim Rasul waaye nag kañ maam Cheikh Rayen Fall aji àgg ji. Euh, di woote ci bis bi nga xamante ni euh, Serigne Moustapha Bassirou moo ko jox sunu jëwriñ soxna Fatoumata Fall ñu ciy sant maam jaaratu laa Jaaratullaa bu Bousso di ci delloo njukkal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul euh, bis bi nag ñu ko jëwriñ waxee rek na ko ñëpp waajal fu waay mën a nekk na ko waajal te xam ne bis bi bisub Serigne Touba la bisub Soxna Jaara la bisub maam Cheikh Rayen Fall ko ñëpp waaj ñu ngi ci woo mbokku taalibe yi. di ci woo mbokk jullit yi di ci woo fédération Lamp Maam Jaara yëpp ñu ngi leen ci woo bu baax a baax di ci woo ñi nga xamante ni ñoom ay taalibe leen te bëgg sëriñ bi te xam ne sëriñ bi ñëpp la bokk jaboote ndax li xayrin taxaa bil mun taxaa kulla si saxaa wa yanhu bihi naf yi sax yi dun wa suttuxaa képp ku nar a dem safara rek du ma jublu man sëñ Tuubaa way taxee rek ñoo may jublu kon ñëpp a ci biir sëriñ bi kon nañ ko ko waajale bu baax a baax te xam ne delloo njukkal sëriñ Tuubaa dafa war ndax li rabbin xafoorin xatmaha anniya zamba wa anni nafa iblisa fil bahri maa yomba daan ga mu daan iblis sa géeju maa yomba da ko daanaa leen bindeef yëpp rawatina ñun ndongaam yi nga xamante ni mooy sunu xemmemteef ci sunu borom mooy sunu yëg-yëg ci sunu boroom mooy sunu bëgg-bëgg ci sunu borom kon bis baa ngi noonu fu waay mën a togg ay bernde andi ko ñu ànd ko fu waay mën a am sa àdd yi andi ko ñu togg ndog yi andi ko ci bërëb bu tedd bii nga xam ne Serigne moo ko tànn goo xamante ni laytaay la bu mu bu mu lall ci ndakaaru di ndamam bokk ci ay ndamam bokk ci ay payam bokk ci tawféexam kon na ko ñëpp waajal bis baa ngi noonu di wax ni du hasard ndax daa judd ci yoon wi màgg ci euh, bëggu ko lool te gëm ko te yemale ko ak lenn nag dañ nit moom soo bëggee leen da koy nuru nurulu boo ko nuru nuruloo rek daal di koy doon te moom daa doon Baye Fall juddu ci Baye Fall yoru ci Baye Fall bu màgg ci Baye Fall kon bu ñëwee doon dafa day doon Baye Fall soxna maam jaara bu soow di ko nuru nurulu ba doon ko tey jii naa ko làmp maam jaara dund de hasard waaw kon dañ koy ñaanal yàlla dëgëral ko te kàttanal ko te lafal ko cat ba fa mu bëgg yegg mu àgg fa kawe njortam si baaxoon Cheikh Ibra di wax ni woote bi nga xamee ni muy 4 avril bi nga xamee ni euh, dëgmal na ko ndigal la ci am te ñun ab Baay Faal moom ndigal rek moo ñuy suxat ndigal moo ñuy dundal ci la ñuy noyyi muy digal lu jógee sëñ Moussa Bachirou di ko ñaar yaay yokk ay leeram taas ci barkeem di wax ni lu waay mën rek naka si def jëf jël la ñakk jariñu boo leen gisee jataay bi ci Masaalikul naan bis ba daan xew moom moo xeweti ki nga xamante ne moo di soxna làmp Fall Maam Jaara di jàmbaar di euh, di jigéen ju mën góor di ko xamante ne lenn ci boppam ñoru ko lu dul Sëriñ Tubaa Maam Cheikh Ibrahima Fall ñëpp dégg nañ ko ñëpp xam nañ ko ci yoonu murit liggéey bi nga xamante ne mi ngi koy liggéeyal sëñ Tuubaa tàmbale ko ci poroxaan ba ca Sarsara ak fu ne soxna saa ngi fay liggéeyal maam Cheikh Ibrahima Fall rawatina nag ki nga xam ne moom mooy reyukaayam di soxna jaaratullahi Mariama Busu soxna si nag di woote bis bu rëy boo xamante ne yàgg na ko woote muy bis boo xamante ne da cee amul ndigal ndigal loolu jóge ci kan Serigne Moustapha Bassirou di ñaan yàlla suñu borom yokk leeram te ci barkeem di ci woo mboolem mbokki murit yi mbokki taalibe yi ma ci profité di ci woo mbooleem waa Masalikul Jinaan xidma Masalikul naan sëñ Taïba Ndiaye jiite ko ñu ngi leen di ñu ngi leen di woo xidma propre Masalikul Jinaan ñu ngi leen di woo ak mboolem mbokki taalibe yi képp kuy dégg sama kàddu te yaakaar sëñ Touba Cheikh Ibra ñu ngi lay woo ci marché bi ngeen ñëw ndaxte kat delloo njukkal Serigne Touba jot na. kon boog mbokki taalibe yi góor jigéen mag ak ndaw yéen ñëpp ñu ngi leen di woo ci bis bi nga xamante ne le 4 avril ñooy déparé place de l'Obélisque dox marche sant Serigne Touba delloo ci njukkal ci soxna jaara ñëw fii ci Masaalikul naan di wooyit di wooyit soxna yi nga xamante ne ñoo nekk fii soxna gàmmu Jóob jiite leen ñoom ñëpp di sama waajur ñi ngi leen di woo mbooleem mbooleem daayira yi mu àndal yëpp ñi ngi leen woo ànd ak soxna Faatuma dafa Lamp Maam Jaara di waajal 4 avril bi nga xam ni dañ ciy sant soxna maam Diarra buso bis bii bañ ko tàmbali ba léegi maag soxna Fatmata Fall 2004 ba léegi ñoo ngi ci ànd di ci sant maam Diarra buso ñu ci woo mbokk taalibe yëpp nag di ci woo daayira maam Diarra Bousso yëpp di leen xamal ni. sëriñ Tuubaa di ko sant ku nekk suñu borom moo lay fay waaye soxna maam Jaara Buso képp ko sant sëriñ Tuubaa moo lay fay kon bis bi nañ ko waaj baax a baax te xam ni bisu ndimbal la bañ ko tàmbali 2004 ba léegi ak léegi ko gis xam ne bis bi yokku na kon nag ñëpp teew jàpp ci te xam ni bisu faju ajo la bisu ndimbal la kon yàlla na ci am ngërëm Soxna Jaara ñu ngi sant ñëpp nag di sàkku nag ñëpp nag teew ci te xam ni bisu maam Diarra Bousso tey damaa jaar jaxaay fekk fa suñu fàllu jalaal mu naroon a ñëw ci bis bi nga xamante ni moom bisub ren bi daa am lu ma ci wax lu gën a kéemtaan ndax araf yi nga xam moom la tombeel dafa tombeek araf yi la kon bis bi daa wuy Cheikh Ibrahima yi nga xamante ne mooy borom la kon nag loolu taw tawféex la kon daanaka kàddu gi du bëri sax ndax li fi mat a wax yëpp wax nañ ko xanaa di woo waa ak mbokki taali bi nga xamante ne ñëpp ñu ngi dégg samay kàddu waaw di leen wax ni bis bi la 4 avril lay doon incha allahu bi képp koo xamante ne fas yéene naa ñëw liggéeyal soxna mata Fall Lamp Maam Jaara ànd ko liggéeyal Sëriñ Touba ñu ngi lay ñaanal Cheikh Ibra mi nga xamante ne moo yore fay mu fay ko barke maam Cheikh. ca Petit Mbaaw ah ñu ñëw nag wuy si nii ci woote soxna bi soxna si ci 4 avril bi di wax na ñu ngi woo mboolem koo xam ne rek yaa ngi làmp maam jaara ñu ngi lay woo ci bis bi di la wax na nag ñëpp teel a ñëw waa ñu defar bis bi ba mu baax ndax liggéeyal maam soxna jaara moom amul tànk ginnaaw tànk kanam rek laa am waa ñu ngi woo ñëpp nag di sant soxna si bu baax soxna Fatmata Faal ndax suñu royukaay la moom la ñuy bégee moom la ñuy tiitaroo ndax lépp lu ñu am ci liggéey bi rek ñu ngi ko koy sante bu baax ginnaaw bi yàlla wéyee di sant samay ñaari waajur bu baax di woo ñëpp nag ñu ñëw ci bis bi. ñaanal nag sama jëriñ soxna Fatmata Fall lamp maam jaara euh, di ko sant bu baax nag di xam ne bis bii muy woote keroog ba ko sëñ Moustapha Ba si di jox di ko sàkkaloo bis bi mu tombé 4 avril bii di le 4 2004 la ko ko joxoon ñu di ko def ba heure bii. kon dañ koy ñaan yàlla gën ko dëgëral moom soxna Fatoumata Fall jàmbaar lool nag waaw di ñaan bis bi ñu ngi ci woo daayira làmp maam jaara yëpp man nag maay soxna Xadi numéro 2 waaw di woo daayira yi ba mbayeen ba mbay sanc mbayeen di woo mboolem daayira làmp maam jaara di woo ñoom di wax ñoom soxna Yaasin ñu waaj ñoom ñëpp waaw ci benn yeex yëpp waaw di ko sant nag ndax sëñ Moustapha Bassir moo ko ne ba su ma wéroon saa yoo jógee ci sama liggéey maam bi ma jóg ànd kook yow ndax pasteef pasteefam moo tax mu am loolu di sant ñëpp nag di sant sëñ Massamba daayira géejo waaye ñëpp waaw ñëpp daal ñu ngi sant di gërëm soxna làmp maam jaara di ko gërëm bu baax a baax ndax suñu xamee lak moom mi ngi jógee ci jaar-jaaru sëriñ Touba bi am tëngéej di xew xew suñu kër si lañ ko xamee ba mu ñëwee tamit mu doxin fa doxin bu rafet sampal ñu fa daayira maam jaara boo xam ne chaque alxames dañ fay daje kon ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di ko ñaanal yàlla di ko ñaanal liggéey bi mu sumba nii yàlla naka yàlla suñ borom bi jàppale te taxawu ko si barke Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërëjëf jaaraama soxna jaaratulaa sëñ Saaliwu mbakk yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem Cheikh Muntaxa mu sëñ Basiir yàlla na fi yàgg te wér bi oyof lool ci moom neex lool ba wàcc ñun taalibe yi sëñ Amdu Moodu Mbend Faal yàlla na fi yàgg te wér sëñ Moodu Amita Faal yàlla na yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeem waaye yàlla taas ñu ci barkeeb sëriñ Seex ji mu Faal sëñ Moustapha Bassirou yal na yàlla yokk ay leeram te taas ci barkeeb waaye ki ñu doon xaar ñëw na borom 300 pour cent borom jaarim borom Touba borom Poroxaan yal na fi yàgg lool te ànd ak wér ñun mboolem làmp maam Jaara ñu yàgg ci ginnaawam di ko liggéeyal. ba keroog ñuy am ngërëma soxna jaaratu laa ma Mariama Bousso maa ngi leen di ziar yéen ñi fi teew ñëpp nga xam ne yéen ñi ay tànneefu sëñ Touba ngeen sëñ Touba leen a fas yéenee liggéeyal di sant ci teewaay bi bu baax di wax ni képp koo xam ne gis na avant première bi na xam ne fa nga nekk mën nga faa def sa avant première dugal muy waa Touba Baye Fall seen ñoom soxna Ndey Fall. soxna maam jaara Jóob soxna maam jaara ak ñépp ñu nga xamee rek ña nga Tuubaa ah waa Daaru Salaam ñëpp mun nañoo àndandoo def seen benn avant première ah yónnee ko di wax tamit soxna ki ne mbayeen ñoom it woo naa leen nga xam ne jógee foofu di ñëw day metti ñoom ñu dajaloo daayira yi nekk mbayeen yëpp ñu def seen avant première yónnee ko waaw soxna Ngoone Sàmb ak mbooloo mi ñoom ñu def seen avant première yónnee ko waa Taïba Ndiaye ñoom it ñu def seen avant première yónnee ko waaw ku ci nekk rek ak gox ba nga ne ak waa mbuur soxna Binta May moom it na def woo daayiraam mook soxna Ndey Maroo nag daayira yi mujjee sos yëpp ñu àndandoo def seen avant première yónnee di wax ni maa ngi sant mboorom làmp maam jaare gi yëpp ndax man kat soo gëstoo gis leen sama xel day dal ndax bëgg maam jaara rek lañu ànd ak man ku ci ne nag dama laa bàyyi sii si fi bopp ne la demalal sa bopp ndax bu ëllëgee nga mën a demal sa bopp waaye nag ñuy ay jàmbaar rek kon liggéey bii nga xam ne moom la ñuy liggéeyal soxna jaara ñu ngi ciy woo waa kër sëñ Basiru gi yëpp di ci jiital nag waa kër sëñ Moustapha Basiru mi nga xam ne bu ñu amee bis bi mu yàlla ak moom di ci woo nag njabootam gi yëpp nag di terale ko ci sëñ Moussa Nawel ba ci suuf waaye di ci woo nag ki nga xam ne kan moom laa fekkoon tip mun ma lépp la sëñ Moustapha Bassirou defaloon dinaa ko yokk muy kan muy Cheikh mun taxaamu sëñ Bassirou ñu ngi ko ciy woo di ci woo njabootam gi yëpp bàyyiwuñu kenn góor ak jigéen ñu ngi leen di woo ci bisub soxna jaar bi waaye ñu ngi ciy woo it daayira maam jaar yëpp. yi nekk fii ci Sénégal ak yi nekk bitim réew yëpp bàyyiwuñu kenn jëriñu maam jaare yi nga xam ni tey jii ñoo ngi fii senegal di ay jàmbaar ñu ngi ciy woo ñëpp bàyyiwuñu kenn am nañ ci kenn ku ñu ànd liggéey bi muy Sëriñ Laxaat mi nga xam ne moo yore ànd liggéey soxna jaara soxna Sooda mi nga xam ne moom it day ñëw ci liggéey bi saa su ne di ànd ak di fi yebal délégation dama jël soxna Ndey Mari ne ko man maa woon a jóg di liggéeyal soxna Sooda ci bis bu tedd bi muy defal sëñ Tuubaa waaye yow ma ndey ma ne nekkal ma fa kon ñu ngi leen ciy woo ñoom ñëpp waaw waaye di ci woo soxna day Jóob bu jaar yotu laa waaye ñu ngi ciy woo it soxna gàmmu Jóob mi nga xam ne moo nekk fii waaw du ci woo nag jàmbaari làmp maam jaare jàmbaari làmp maam jaare yi bàyyiwuñu kenn waaw waaye am na ñoo xam ne nag seen pasteef moo tax ñu leen di tudd giñ ci njëkk tudd nag mooy ka ñu fekkante woon nag poroxaan te booba xaw ma woon sax dinaa nekk jëwriñ muy kan muy soxna maam Faati Mbàkke benn tali mu sëriñ Fàllu soxna Seynabu Fall mu sëriñ Abdourahim Fall waaw waaye di ziyaare ak di woo soxna Ayda Seck moom da daan taal otom di ñëw yal na ko yàlla may wér waaye njabootam gi mu formé di waa njagañaaw ñoom ñëpp dañuy ñëw kon ñoo ngi leen woo ci bis bi waaw waaye nag di jiital nag ñii nga xamee ni ñoo ne ci liggéey bi nekkal ko fi waaw ndax soxna Aram Faye ak njabootam gi yëpp ñu ngi leen woo ci biir liggéey bi waaye ñu ngi woo soxna Issa Ndour di woo soxna Fama Giro di woo soxna Kiné tuddoon naa ko sànq di jàmbaari maam jaara nga xam ne bu ñuy ñëwee di waa kër sëñ Bassirou yi di dem dañuy ànd ak ñoom xadi pay ñii toog ñëpp di jëwrin ànd ak ñoom ci biir liggéey bi waaw soxna Bintu Samb ma nga Maroc waaye ñu ngi koy woo ak waajuram bu jigéen soxna Ndey faal ak suñu xalifa bi nga xam ne mooy Moustapha Mamadou Fall di xalifa Moustapha Fall ñu ngi koy woo ci biir liggéey bi tudd naa sànq famille Moustapha Fall di woo soxna Maam Jaara Seck Kaolack di woo soxna Ndey Fall Touba ndax ñoom dañoo war a àndandoo ñoom def seen avant première waaw waaye nag ñi nga xam ne dañoo ànd ñoom dañ naan nit ki da ngay ne bu liggéey jotee da ngay ne am ñoo xam ne da nga leen di ne man sëñ Touba rek laay tuddee bis bi ak mu jot ñi nga xam dañ maa yaakaar ngir sëriñ Touba ba boole ma seenub liggéey ñoom laay woo ci liggéey bii di ci jiital sëñ Moustapha Mbacke ma nga xam damaa àndoon ak moom ci sëriñ Saliou yóbbu liggéeyu kër sëriñ Touba Sébi Xotaan ñu ngi ko ci woo ak waa kër Sébi Xotaan gi yëpp waaw di ci woo waa kër sëriñ Touba yi nekk Jam ñaajo di ci woo sëriñ Touba yi nekk Taïba Ndiaye ndaxam xam ngeen ni Ndiaye Coumba di suñu wërlale ak njabootam gi nga xamante ji ñoo nga tey ba Ndiaye waaw waaye nag di ci woo waa kër Serigne Mbodj Serigne Mbaye Mbodj mii nga xamee ni moo doon jëw ni sëñ Moustapha tegoon ko ndax ne ko fii sëñ Touba jaaroon muy bolokos damaa bëgg nga doon jëwinu liggéey bi mu boole kook sëñ Mountakha sëñ Mountakha boole kook taawam di maam no ñu defal liggéey bi ba jébbal caabi ji Cheikh Mountakha mu sëñ Bassirou kon famille sëriñ Mor Mbodj yëpp ñu ngi leen woo ci biir liggéey bi waa ko Chérif Ahmed Khoureyssi ñu ngi leen woo waaw ndax wóolu gi ma wóolu ak tànn gi ma tànn ci bërëbu Serigne Touba jaar ñu woo ma ci ñu ngi koy woo famille bi yëpp di ci jiital sëriñ saaliw jaañ ak jëwriñ bi nga xamee ni moo fi nekk di Pape Konaare Diagne waaw waaye ñu ngi ciy woo. waa ndeer fa sëriñ Touba jullee ca ndeer ji woo jullit kunta sëñ guli jullit kunta waaye Baye Diouf mi nga xam ne moo nga xam ne sëñ Touba jaar ca Louga ca gargu Louga maa ngi moom ñu ànd yóbbu liggéey ba ci sëriñ Saliou kon sëñ Baye juuf ñu ngi lay woo waaye di woo faama faama soxna faama Lo mi nga xam ne moom it day jàmbaar ci Louga waaye di ci woowaale it ah, soxna maam Isa Mbàkke mi nga xam ne mooy suñu sang ñu ñëpp ci Sarsara ñu ngi ko ciy woo waaw waaye di woo waa kër waa Sarsara Sarsara kat bërëb ba nga xamee ni sëñ tubaa fa la dajeeg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon ku ñuy wóolu muy kan muy sëriñ Sidi mu sëriñ Moutala am fa cër bu rëy liggéeyloo ma fa kon ñoo ngi ciy woo sëriñ Sidi di ci woo képp koo xam ne am nag moom ci liggéeyu Sarsara bi ñu ngi lay woo ci liggéeyu 4 avril bii ndax ñoom sëriñ tubaa tax ah moo ma booleek ñoom ñoom ñëpp ku ci ne xaw ma leen sëriñ Touba moom ma booleek ñoom may sant sëriñ Touba di sàggal sëriñ tubaa di leen woo ci bisu sëriñ tubaa bi bis bi nag day bis boo xamee ni lépp luñ ci bëgg rek mooy na taalibe yi bëgg rek fii day jumay Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasuul sëriñ tubaa dafay wéetoon lool moom rek la woon sonnoon lool waaw ba yàlla def mu am ngërëma suñ borom moo ko may jumaa ji liggéey bi feneen lañ ko doon defee waaye keroog bañ deggee sëñ Sidi Mokhtar daal ni képp ku amati bis indi ko Masaalikul Jinaan fu ma ko defati ëllëg rek pour man bis boobu daganatul moo tax ma koy def fii Masaalikul Jinaan di ci woo jëwriñ mbàkk yu fay di ci woo képp koo xam ne yaa ngi Masaalikul Jinaan yore sa daayira ah sëñ Saree tudd na leen ak ñoom jay su nag ñëpp bàyyiwu ma kenn waaw woowu ma kenn sama jëmm ji waaw ci sëñ Touba rek laay woote waaw te boo gisee ma woote ci sëriñ Touba soxna jaaraa tax ndax sëñ Moustapha Bossi su ma jàppalee bis ne ma la 4 avril na nga ci sant soxna jaara ah quatrième jour quatrième mois waaye ku ko mérito maraam numéro 4 donc moo tax du ma ko tudda kenn ku du Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul te am na mun na te deewu ko dara daw te du fu nooy daawul téye xaalis daawul lekk lu neex akuñu ko wóolu kon kooku la ñuy woo ci bis bi di teg lépp nag loxo yi ki ko fi nekkal moo tax keroog ba ma demee ci Cheikh Mountakha nee naa ko sab liggéey a ngi de ndax bërëb bi sëñ Touba jaar bu yàlla defee mu jaar ci sama loxo war naa ñëw jébbalaat laal ko yaa fi sëñ Touba nga xam liggéey bi fu mu toll kon moom ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi lool di ko tàllal daal loxo Mbàkke mu ñaanal ñu ci bis bii ñu am ci ndam ndax nag war nañu ñu gis lam ñu waxoon yëpp gis nañ ko Mbàkke kon ñu ngi tàllal loxo yi Mbàkke ay Aïssa mu ñaanal ñu ci bis bi waaye nag di wax ni képp koo xam ne média nga te ñëw di liggéey sëñ Tuubaa muy seen pro Mbàkke TV bu TV ak waa Lamfal mi nga xam ne ñoom it à chaque fois damay accompagner ci biir liggéey bi waa Touba TV bàyyiwuma kenn képp koo xam ne waa Walfadjri képp koo xam ne yaakaar nga Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul ñu ngi lay woo ci biir liggéey bi nga ñëw def loo man def loo mënul ndax sëñ Touba am na ko mun na ko ah ko waaye lebal nag mu fay la ko. yéen waa lamp maam jaara déglu leen ma ma woy fi jàmbaari soxna jaara. moom lu am day liggéeyal soxna jaara moom lu am day liggéeyal soxna jaara te du denc dara ci barkeb maam jaara yal na ko yàlla ak yonent bi fay ci barkeb soxna jaara ngeen gi fay sëñ Masamba ba ci seere ma ma woy fi soxna faatu faal jàmbaar ja jàmbaari soxna jaara lay kañ yal na ko maam bu jal di fay